baax yow ak euh, El Hadj Pape ma bàyyi leen euh, ngeen yeggale. waaw parce que El Hadj dama la wax ne la bul confondre joxe dund. ak dundal ak dundal. parce que boo ma waxee bu doon un million joxeel su ko defee ci xale yi baax na su ko ca deful def nga li la war. d'accord ma. Mhm. non non non Pape. parce que encore une fois yàq nga góor ñi lu ne. Mhm. ba tey d'accord naa. Mhm. mais dama ne. boo yàlla defee nga tàggalikoo ak jigéen nga am responsabilité bu toll ne dundal sa waa kër bu weer deewee mu bari mu néew nga def ci enveloppe jox seen yaay mu di la ko xeexee yow c'est au détriment des enfants xeexee comme comme mooy lan maanaam la war a dem ci xale yi def demu ca diwam la ciy lijjanti ah. comme ni nga wax sànq na ci xeesal ba weex waaw tax ngeen xalaatee ko noonu waaw duñu loolu du xalaat ñun li ñuy def du xalaat dañuy teg suñu bët ngay jënd ay greffage di gën a nay. mais du ñëpp a koy def. waaw ci la jógee parce que goro yatoo. fan lay feneen. wala wala xaar ban tas doog a nekk mën nañ ko ko may. waaw moom laay wax. elle est célibataire. Safia non dama ne. maa ngi ñëw dama ne xalaat waaw na nekk ay noor su ma mooy nekk suñu problème pour sama doom da mooy nekk suñu problème. te moo koy nekk. ba keroog ba keroog ñu ñuy suul parce que li ñuy wax ñun duñu ay dof xam nga le problème bi mooy bu leen ñu teg ay dof ñun duñu ay dof ay nit njaay lañ ndax bu doon ay bu doon ay dof du ngeen ñu gis tànn ñu ñun pour ñu juróog yéen ay doom dama ne koo ko gis mu di ko jàmbat ci jabaram ay doomam ña ngay tum ranke ña ngay dee xiif heure bu leen bettee ne day seet seen yaay ñu ngi ci kër gi ñu dendal fa la lekkee fa la ñuy naanee. mais solution am na. solution am na. waa waaw d'accord naa waaye moom waxul solution. Mhm. moom daf ne joxeel. bu demee ca xale ya baax na bu ca demul sa yoon nekku ca. yegg na sax yegg na sax ba ne góor yi seen bopp. ay c'est des c'est des irresponsables. Mhm. c'est des c'est mhm. parce que na ko xeesalee. na ko jëndee greffage au nom de quoi parce que dama wax ne. Pape Thiam moom avocat. soo jëlee soo jëlee. Eh, góor xoolal jigéen ñi defuñu dara lu jiin njàkkata rek soo jëlee dundu xale yi la soo jëndee dundu xale yi xeesal ci greffage ci def ci ba nga xam ne ni effectivement keneen gis na la yow sax war nga rus xam ne lii alalu xale yi nga defee nii di wasin di xool doomu soxna xiif mu soxna la greffage soxna si dafa wax sànq xaaral xamu tax mu mën a nekk xamu tax mu mën a nekk soxna si dafa wax sànq jigéen dañu am yërmande ci seen ay yërmande jigéen mooy biir mooy wasin moom mooy tànn yéen xamu leen ko dëgg la dëgg la yërëm ñooy nàmpal ñooy faral jigéen waa waaye yéenay rey da ngay yor sa doom yéenay nàmpal yéenay faral waaye yéenay rey sa jëkkër naan la jëlal sa doom ji jëlal sa doom ji te bu tekkee nga ma koy féete woo barki dem boo njaay ngeen fi def jur doom tuddee la ko nga gàddu sànni ci biir teen yéenay jur yéenay rey kooku dafa kooku du moom il ne suit pas de ses facultés xëy na wala am na lu tax mu def ko mais man du ko def Sofia du ko def kii du ko ah, def goro fee nga ne goro moom kon xanaa duñ jur ay doom muy moom la kon suñ biiree lekk morom ma te ñoom ma ne la kon suñ biiree la du yàq du yéenay jur yéenay jur yéenay nampal yéenay rey mais di ngeen traumatisé jigéen ba mu waree dépression Alzheimer yéen a ko teg jigéen ñi Alzheimer yéen a ko teg jigéen ñi ak mu ne mu ne mu ne jur doom sànni mu lay xool sa yaram dawul nga wan ginnaaw mu jooy sa yaram dawul nga jël takk ci mbuus mu sedd buy sa yaram dawul loolu ku dëgg du ko def dama ne loolu nag ba ah. jamono man xam nga dama rey sama doom ñun bañ nekkee xale ba léegi ñu ngi koy dégg li am barki de moo njaay moo mujjee fee bu ne weñ la mais prospère ñuy dund franchement ñoo ëpp ñi ñuy rey waaw waaw waaw mais ce sont des exceptions waaw mais non mais ki def loolu xëy na dafa les trains les trains qui viennent à la gare à l'heure mais doom ci xool la sax intéressé. waaw ci en tant que góor dama lay poser question en tant que góor. est-ce que euh, li nga war a def. par rapport à tes enfants. waaw. doo trouver tout le temps benn xam nga boo joxee benn weer ñaar nga gis ne sa jabar mu ngi sañse comme tu as dit mi ngi béele alors que tes enfants meluñu situation bi la neex. mais contourneel loolu bu dee yére nga jënd bu dee lekk nga andi bu dee fourniture nga andi bu dee leen nga andi parce que sa xaalis la bu la neexee def ko matériel andi ko mhm. mais y'en a qui ne font rien du tout wala bu weer bi dee ñu sànn la benn 10 000 wala benn 20 000 dafa mën a yor xal 3 wala 4 wala 5 xal d'accord naa li nga wax mhm. parce que équation bu taxaw rek war na am solution mhm. je suis d'accord avec toi mais encore une fois yaa ngi fàtte ñi nga xam ne. Mhm. yàlla dogal na ñu tàggalikoo ak jigéen. waaw bàyyi njaboot. waaw nekk bitim réew. am nañu mbokk. non mbokk mbokk yi léegi yee gën a doy waar. am nga yaay am nga papa am nga ay rak expliqué. ñoo xam ne mën nga leen yónnee. ne la jëndalal sama doom lii ñu dem jëndal ko dem yót ko ko. loolu laa lay expliqué loolu gis nañ ko fi. loo ci def loo ci def ci histoire lay mujjee mais dama ne waaw euh, euh, madame madame madame Diallo il y a une solution beaucoup plus simple que ça. Mhm. ngor gi ma am. ba tàggali koog yow. fees sama place ba samay doom bëgguma ñu tumuranke dara. waaw doo ma ji ngor googu ba lu ma la jox mu dem samay doom. waaw d' accord naa loolu moo normal. mooy le soxna si soxna naka. jaara soxna jaara. mosoo mhm. nee na am na sama benn xarit boo xam ne seenu oram la jaay pour inscrire doom. mënu ko woon def te doo ko yëg. c' est normal. mais xaritam la. waaw ba ay alors. non dëgg la d' accord naa ndax mënu ko woon def. ba jaara jékki-jékki ne ko waaye yow sa chaîne bi ma gis. nga parce que du sacrifice au fait du c'est c'est quelque chose qu'elle devait faire jëm si bu léegi sama laaj. d'accord dama ne ndax mënu ko woon def. ba jaara dox ba jimmi jamono soxna jaara jox ba jimmi jamono. Mhm. ne ko waaye yow diw. seen mhm. bi ma gis si seen bu rafet boobu anamu mu doog ko expliquer. waaw waaye lu ko jotale jaara. xaritam la benn ñaareel bi mooy. il yaa a une chose que les femmes oublient. am na ñu mënut a denc. jëlal un milliard. def ko ci xale bi mais sa doom nga ko def. doomu kan nga ko def. mais mën na koo expliquer ne ko xoolal ni ma papa am abandonné toppatoowul sama doom ba ma jël sama ceeb jaay. c'est-à-dire papa man c'est-à-dire mën ngaa yegg ci abandon te du xam yow nooy fayee sa bopp jinax. mais loo gis ku nekk koy waxtaan ak sa nit. Eh, foofu la sottante xalaat encore une fois monsieur Thiam ku am sox ku am problème. jigéen may leen ma rek jigéen ñëpp ngi am goitre. ñii ngi ami cancer. ñii ngi yor feebar yoo xam ne Alzheimer ak lu ne kan moo leen ko teg. seen bopp di góor ñi leen ko teg. seen bopp leen ko teg bëgg lu ngeen sa jabar buy wali ah. bëgg lu ngeen mën toroxal sa jabar. oustaz wax na wax ju am importance mais toppatunu. dama ne jamono yonent ba la fa xewoon xewatul léegi. waaw dan lay xemmem takk la pare ci yow toroxal la. bàyyi la ak sa njaboot ngay xiif. waaw maman Aïcha dañoo bon de. prophète euh, prospère. est-ce que di nga joxe sa dépense yow di xaar sa jabar naan la jërëjëf merci. déedéet xam nga doo ko xaar. déedéet waaye am na kooy jox dépense. waaw ah. na ko am madame dépense ngi nii mu ne la merci jërëjëf. xam nga lu tax. Ah. parce que c'est pas une obligation mu ne la jëf yow sa devoir la yaa ko war a def boo gisee ma ne la am na jigéen boo jox dépense mu ne la chérie jërëjëf ngir mën laa encourager ngir yërmande bu mu am ci yow. waaye am na jigéen boo koy def day xam ne lii sa devoir da nga ko def kon donc soxlawul jaajëf boo gisee ma lay indil anecdote boobu. Mhm. mooy que ni jigéen ñi yàlla moo leen bind te yamalewu leen. Mhm. non jigéen deuxièmement ah góor góor ñi la yamale. waaw non de non damay ñëw. damay ñëw kay boo ma ma dégloo man dinaa ñëw. dama la maanaam nit la yàlla bind te yamalewu ko. waaw yàlla dafa bind te yamalewu yàlla dafa bind rek te waaw yàlla moo bind te yamalewu waaye yàlla bind te yamalewul. waaw dégg nga ñun ñun góor ñoo leen ñun. non man damay dem te yeggagu ma fi ma jëm. Ah. xam nga balaa ngaa mbéj jéem ñu sàmba da ngay xam la muy walis gis nga ci wàllu yërmande ci wàllu gérer njaboot. Mhm. góor tollul fii jigéen ci wàllu yërmande ci njaboot. maa la koy wax tey gis nga max la dama lay jox ñaari anecdote benn bi mooy dafa am jigéen bu doon sëy am juróomi doom yu jigéen ak benn bu góor mu yàkk añ moom ku jigéen ki yàkk añ goroom ne ne ne doomam bul añ ci añ bii ndax sa jabar ji ku bon naa capable na def lu ne mu ne ko waaw mu ne ko añ bi wóoluwuma ko tax daf cee def ay bu butéel fekk goro ba sëy bee ko neexul dafa bëggoon kut ko kut pour sëy bi tas moom moo dëbb ay xottu butéel def ko ci añ bi bi yàlla dogalee mu xam ne moom doomam mooy sëy ak ku jigéen kii am na ñuy njaboot buggul xale bu jigéen bi bëggul njabootam mais bëgg na doomam moom mère bi parce que doomam mooy denc ki euh, ku jigéen ki mhm. mu ne ko bul dugal sa loxo kii ay xottu butéel la ci def xam nga nan la doom ji def doom ji dafa dugal loxo ba ci biir bés ceeb bi ak dooleem loxo yi da nàcc mhm. mu xam ne effectivement yaayam wax na ko wax na ko dëgg mu jàpp jabar ji mbéj dóor këdd poñe yóbbu police bi ñu demee police dañoo jël ceeb bi yóbbu ko ci benn euh, xawma laboratoire la xawma ñu def ko microscope gars yi ne effectivement lii dafa am xottu bu ci inspecteur bi ou bien enquêteur bi moo ne daf leen ndànk dafa am lu ma ko bëgg a laaj mu woo soxna si ne ko da am ay doom mu ne ko am naa ay doom mu ne ko est ce que njël li say doom dañ ciy lekk mu ne ko effectivement man maa ciy lekk ak samay doom mm-hmm. mu ne ko est ce que sa jëkkër daf ciy lekk mu ne ko effectivement man dama ciy lekk sama jëkkër di ci lekk samay doom di ci lekk inspecteur bi enquêteur bu ne eh attention jigéen soxoreewul nii ba bëgg a sacrifier boppam sacrifier njabootam am na lu xew bi ñu gëstoo ba gëstu ko ndekete yaayu jëkkëram moo ko def parce que bëggul ndaw si. Mm-hmm. est-ce que yaa may dégg la donc man boo gisee. xaaral ma ñëw ci film de responsabilité bi yaayu ndaw si. du jigéen mais jigéen la. ok waaw mais moo tax ma ne la exception day am. bu fekkee dégg non non non yow yaa ngi daw jigéen mais si jigéen la taxawaat yow yaa ngi daw jigéen. non mais attends si jigéen la taxawaat. yaayu ndaw si lan la yaayu ndaw si xaaral jigéen la non non non yaayu waaj la te am na njaboot